kuresiyeetum ak santam di tënk nuyoo bi sëñ Mountakha Bassirou Mbacké yàlla fi yàgg wér ak njaboot sëñ Touba gépp ak lu Mbacké mbusoo bi ak paaleen ñi teew ci bi di nuyu baax a baax nag di beneen nuyoo le candidat de la Un ensemble des responsables, notamment les députés du département de Mbaké, les membres du Conseil économique, social et environnemental, religieuse et politique yi fi tey kàddu yi du bari ndax fii keppaaru Sëñ Tuuba fii keppaaru Sëñ Fallu Mbàkke la mbay pee wax na ko at mu ne ci waxtu wii sëñ Abo day ñëw fii seetu weer wi loolu nag bu tombee tey sunu candidat ñëw fii mobilisation mel ni mësul am Mbàkke

c'est l'occasion occasion tamit pour man ginnaaw président Macky Sall mission jeex Sénégal day ça va être un fii samay va mbokk samay kanamu ça va être un jàmm mu rendre hommage au président Macky Sall rendre hommage au président Macky Sall pour toutes les réalisations qu'il a fait au niveau du Sénégal réalisation particulièrement au niveau du département de Donc, ñaar dans le sac. il a pour un investissement de plus de 400 milliards hôpital Cheikhoul Khadim université Cheikh Amorou Bamba qui bu baax particulièrement pour les ndax dañ maa fal maire ma toog ak moom ne ko suñu yitte mooy président nga xaar soppi xar kanamu département Mbacké nga soppi xar kanamu Mbacké fan yi weesu premier ministre Amadou Ba ñëwoon fi inauguré stade bi inauguré forage ndox mu neex fii ci Mbacké pour un coût de plus de vingt trois milliards loolu nag day firndeel ne Amadou Ba président Macky Sall ma joxoon ñu suñu ngor suñu ngor ak suñu dignité may ñu ak président Macky Sall lu ñu ci mu joxoon ñu candidat ñuy def leen loolu kon dañuy ñaan yàlla yàlla may ko ndam tey le candidat Amadou Ba benn yitte lañ am benn yitte lañu am mooy bis bu la fi On a am nga département Mbacké on est le département le plus peuplé du Sénégal on est le département le plus important en termes géostratégiques parce que le département qui englobe à son sein Touba la religieuse kon dañoo bëgg le président Macky Sall def fii bu dee benn la nga ful ay junni